Euh, jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy àndal ci seen émission leader politique ginnaaw bi ñu leen nuyoo foo leen mën a ne ci dunia euh, saafonteeg yéen tey ñu am mbégte ñëw ci dëkk bi di Xombol euh, muy dëkk histoire fas yéene nag dëkk waxtaan kenn ci responsable les serviteurs bu président Pape Djibril Fall fii ci diwaan bi di monsieur Abdoulaye mbay ñu fas yéene dalal sekk ak moom waxtaan ci diirub ñaar fukki simili ak lu tek waxtaane politique waaye waxtaane actualité bala ñuy sori nuyu ak internet yi ñu topp ci Thiès info point com euh, mbay Mbaye ngi leen nuyu dalal. maa ngi leen di fay euh, monsieur Guèye di am kontante ak mbégte wax dëgg yàlla ci dalal bi nga dalal tey ci Thiès info di nuyu xaa xombol gépp nag ak euh, mbokk internet yu Thiès info yëpp wax dëgg yàlla di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal suñu leader Pape Djibril Fall ak. suñu naataango yi ñu àndal ci liggéey bi ñëpp kii Abdou Gueye la daanaka moom moo nekk féete ci quartier bi ñuy wax Nganjool fii ci Xombol euh, donc Arona Diallo chargé de la massification Omar Dieye euh, vraiment dañuy am kontaan ak mbégte di ko dalal ndax récemment la rejoindre mouvement les serviteurs nekkoon ku ne xam ko ci Bougane Gueye Euh, mu ñëw wax dëgg yàlla ànd ànd ci nag ak conviction muy koo xamante nii tamit daanaka bu lu dugg rek da ciy da ciy da ciy dem à 100 pour cent Ibrahima Ndiaye mi ngi fi suñu grand Maguette Fall euh, mbay Diallo Cheikh Amadou Bamba Seck gaa yëpp a ngi fi daal jërëjëf. merci beaucoup ci présentation bu am solo boobu euh, président ngeen nekk xombol di def liggéey bu am solo ngir gunge les serviteurs muy projet politique boo xam ni Sénégal ak dunia tàmbali nañ ko miin ci conviction Pape Djibril Fall waaye tam vision ci Sénégal ndax mën na ñoo xam ni ngeen structuré fii ci Xombol ak li ko wër. waaw Xombol ak li ko wër vraiment structure euh, ni ñu structuré yomb na yomb yomb na yomb na expliqué parce que vraiment alhamdulilah rabil alamin laay wax on est présent dans tous les quartiers de Xombol tous les quartiers de Xombol on est présent donc euh, ab liggéey la boo xamante ni euh, lambatuwuñu ko def yàkkamtiwuñu ko aussi. liggéey la boo xamante ni dañ koo def ndànk pas à pas ba atteindre loolu ndax boo xoolee tey boo demee ginnaaw raay ña nga fa boo demee euh, Nganjool Abdou Guèye mii moo fa nekk nga ñëw euh, Ndiayeen Guy Modou Fall ma nga fa ak Fara ak Fara Ndiaye Ngay Aneen yëpp on est présent dans tous les quartiers. les environs de Xombol aussi kenn kenn kenn desu desuñu ginnaaw daal. waaw dëkk yëpp boo boo gisee dëkk yëpp daanaka yi nga xam ne dañoo war Xombol rek serviteurs yi am nañ fa cellule. donc loolu c'est un travail boo xamante ni vraiment travail d'équipe la boo xamante ni ñun serviteurs yi nekk ci gox bi yëpp ñu àndandoo liggéey liggéey boobu mettre ko en place. Euh, gis nañ ni seen leader bi di Pape Djibril euh, naam local yi. xëy na mi ngi doon ambitionné mais taxul mu fës carrément waaye liggéeyam bépp mooy nekkoon législative ngir mu am représentativité à l'Assemblée nationale yàlla dogal na euh, fexe na ba dëggal les serviteurs ci biir pencum ndawi réew mi di défendre li nga xam ne moo di loi yi waaye bëgg-bëgg askan wi euh, ñu jàpp ni tàll na loxoom itam ci présidentielle yi nga xam ni ñu ngi koy waaj le 25 février ana lan moo nekk taxawaayu xombol rawatina structure bi nga xam ni moom mooy base bi ngeen déparé ak dëkk yi ko wër ci euh, loolu Pape Djibril di prétendre. waaw xanaa fas yéene liggéeyal ko liggéey bu mucc ayib rek ci présidentielle yi ñu jëm ndax euh, ku ne xam na ne mbir mi yombul donc taxawaay la laaj détermination la laaj ambition sax moo koy lal te loolu lépp yaakaar naa mi ngi ci ñun euh, dañoo yor groupe boo xamante ni pour ñun nul n'est indispensable dañuy xàccandoo di dóorandoo donc. liggéey boobu jàpp nañ ne liggéey la boo xamante ni ce sera un travail d'équipe boo xamante ni ñun ñëpp ñoo koy defandoo euh, incha allah yaakaar nañ ne dina yomb ndax déjà ñu ngi sur le terrain di di di fa liggéey liggéey di di monter ay cellules comme ni ma la ko waxee rek cellules yooyu ñuy monter daanaka pareeguñu daanaka dimanche prochain am na fen am na fu ñu war a dem monter monter cellule noonu lañ koy jàppoo di te ñun nag wax dëgg yàlla comme ni ma koy waxee rek des fois ma xoo gars yi on n'a pas besoin ñuy Pape ñëw fii ñuy doog a liggéey. dañoo bëgg liggéey liggéey bu am solo téye ko nga xam ne Pape Djibril sax bu ñëwee dañ koy wan ne ko lii ñun ñoo ko liggéey dépendre ko ci yow waaw man man man ñun objectif boobu lañ am ci ci mbir mi daal. mais massification yombul ndax boo nee massification euh, ni jigéen ñi. te la plupart ci ñoom dañuy bëgg a seen bopp maanaam dem ba nga xam ni dinañu am seen moomeel ci seen wàll nekkin ak wàll jo jokkalante ci wàllu koom euh, foofu juste rek ñu wax ci euh, cadre économie solidaire euh, ndax tey ji quartier boo leen monter cellules yi ba dem yan mooy d'accompagnement ngi ne accompagner jigéen ñi rawatina ndaw ñi parce que politique itam toll na foo xam ni xëy na wax ji mën na ko lal mais aussi il faut nga teg lu leer ci quartier waaw boo xoolee aussi tamit nit ku nekk rek. Euh, daanaka da ngay wut say pexe bopp ci ci ci booy accompagner surtout ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci quartier yi euh, foofu Malick daa am loo xamante ni lu tu lu tuuti loo xam ne bëgg naa cee ñëw mooy dafa am benn politique boo xamante ni dañ ko yàgg gis ci réew mi te bëgg mu jóge fi suñu mooy mooy par exemple suñu mbokk jigéen ñi képp koo xamante ni da nga leen a soxla da nga ñëw utiliser leen lu mu leen neexee bu élection jàllee nga nga ne leen yàlla fee te loolu fi mu toll nii ñun ci politique boobu lañ lañ leen bëgg a jëlee bëgg nañ leen a jàppale ba ku ci ne jigéen ju ci ne dooto dooto benn politicien dootu ñëw dina sonal yenn sonal yi di la bu buubu la jox dugal la ci kaar yóbbu la te bu ñëwee bu élection yi jàllee bu ñu amee liñ bëgg kenn dootu la amal si njariñ koo ci roon woo téléphone sax du la jël politique boobu nag ñun foofu la ñuy jóge foofu la ñuy jëlee jigéen ñi ak ndaw ñi li nga xam ne moom lañ gën a bëgg tamit mooy bu fekkee ci côté ndaw ñi bëgg nañ ay formation formation yoo xamante ni yu yu très professionnel bëgg nañu aussi tamit. day opérationnel waaw dañ lay dañ lay tàggat tàggat de telle sorte que tey fi mu toll nii boo génnee rek da demal sa bopp. jigéen ñi aussi même chose ñi ngi def ay formation yoo xamante nii Euh, ñi ngi leen di ñi ngi leen di préparer les formations yoo xamante ni tey ku ci génn boo jotee sa financement di nga mën a demal sa bopp financement yooyu aussi je crois que ñi ngi ciy liggéey aussi ak ay organisation yoo xamante ni xañ na loolu suñu mbirum bopp la après lépp dinañ ko leeral bu soobee yàlla non duñ dévoiler suñu waaw loolu liggéey biir néeg la quoi am <laughs> xam Ablaye Mbaye xam ko ci leadership mu nekk ndaw loo xam ni bon yàgg na manifesté wu ci ci loo xam ne day jëmale dëkkam dëkkam kanam muy xombol ak li ko wër sax mu nekk jeune boo xam ne itam bon xeebul benn génération ah. góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi mi ngi jëflante ñoom euh, tey jii ndax mën ñoo xam rapport bi nga am yaa Pape Djibril Fall. waaw Pape Djibril Fall euh, rapport bi ma am moom daanaka mooy rapport bi bépp responsable bu ne ci moom rek am moom ndax li li nga xam ne moo ko jiitu mooy dañoo bokk ay conviction bokk ay gis-gis ci réew mi loolu daanaka moom moo ñu njëkk a boole. beneen affaire bi ñu boole tey fi mu toll nii Pape Djibril gox bi yëpp bu fiy ñëw il tey ñun ñu wooñu nañu préparer leen kat ñi ngi ñi ngi ñëw bërëb sàngam ñu man tamit ma daal di woo sama délégation formé ko ñu préparer wu ànd ak dem ànd ak moom gunge ko ci buñ paree tamit ñu dellu lépp loo nga xamante ni aussi ñi ngi ciy liggéey euh, au niveau du parti aussi ñun desuñ ci ginnaaw loolu lépp ñu ngi ciy liggéey en parfaite collaboration aussi avec le département dirigé par Sidi Bara Diop ñu ngi koy nuyu de passage donc euh, wax dëgg yàlla euh, relation bi rafet na suñu diggante ak Pape Djibril Fall te ñi ngi ñaan yàlla ma suñ suñ borom gën ñu ko sàmmal daal. Sénégalais yi am mit ci langue politique am ndax bi mu jógee li mu doon wane mooy fexe di di di di di kaasal askan wi parce que bokk na ci ay plateau yu mu daan dem boo déggee ay waxam profondément li ci bari mooy askan wi nekk dans de très bonnes conditions topp ci seen i bien ñu jékki-jékki journaliste boobu dugg ci langue politique. ndaxte tey jii conviction boobu aussi nekk na li la dominé ci moom parce que beneen étiquette la wone que bi mu doon manifester. waaw Pape Djibril tout d'abord euh, dafa nekk nit koo xamante nii ku ko xam-xam ne ku bëgg réew mi la ku bëgg réew mi mooy Pape Djibril Fall ku am yéene ci réew mu Sénégal mooy Pape Djibril Fall tey boo seetloo Malick au niveau de l'Assemblée nationale man damay jàpp ne moom kese jamono ji mooy taxawal askan wi. daanaka ñu ci bëri li nga xam ne moom la ñu diggoon nag askan wi ñu ci bëri ils ont failli à leur mission mais Pape Djibril Fall waxu démbam ak waxu tayam boo ko méngalee benn la man jàpp naa ne kooku gor la kooku jara àndal la jàpp naa ne daal xam naa réew mi bis bu ñu ko joxee réew mi dina ko soppi bu baax a baax a baax loolu moom wax dëgg yàlla am naa ci yaakaar bu baax a baax. am nga ci yaakaar taskatu xibaar ñëw dugg ci langue politique gi soppi réew est-ce que dina yomb. waa dina yomb parce que xam nga yow taskatu xibaar nga te yéen taskatu xibaar yi da ngeen xam lu bëree baree bëri ci réew mi bu ngeen ci boole tuuti ak njub ak tuuti conviction ak gëm-gëm réew mi mën na mën na mën ngeen a jëmale fu ne réew mi. mais mais potentiel bu mel ni Ousmane Sonko gis nga gàllankoor yi mu am dissoudre nañ parteem dem nañu sax ba fiche yi mu doon récupérer DGE loolu lépp naax saay na ndax nee na ñu figuré wul ci fichier électoral bi lu ni mel sax tax na ba Sénat jëloon ci dogal ba njiit la gis nga li ko dal bërki démb mu nekk réalité yoo xam ni ci biir configuration politique bi la am yeneen ténor yoo xam ni aussi c'est une nouvelle génération président Bougane Gueye Dany ak ñeneen ak leen est-ce que concrètement ci ci cadre maillage politique territoire national est-ce que jàpp nga ni Pape Djibril tey yor na lu mu mën a teg ci loxo sénégalais yi. waaw effectivement yor na ko gis nga euh, mbir mi moom euh, tout d'abord sax damay wax ci maanaam tuuti ci bu dee mbiru Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom euh, li leen dal nii man damay jàpp ne dellu ginnaaw démocratie réew mi la rek. Mhm. ndax réew mi bu fekkoon démocratie bi tey mi ngi mi ngi fa mu war a nekk yaakaar naa lii lépp amu fi place daal. lii lépp amu place c'est nous lii lépp mën na ñàkk. jàpp daal ne nguur leen neex ci waay politique yi. waaw loolu loolu loolu même su ko jàpput yéen yéen journaliste sax gis ngeen loolu. Ah, loolu moo suñu loolu yéen yéen a ne ci champ politique bi <laughs> yéen yéen a mën a jooy seen seen seen kii quoi mais ñun moom. observation ak analyse la ñu am. waaw mais même seen i analyse aussi yéen war ngeen loolu war ngeen ko wax. war ngeen ko wax ndax loolu moo am ci réew mi tey fi mu toll nii quoi njaay doole gi daal bëri na lool ci réew Sénégal dañ dëkk bu am jàmm la dëkk bu justice bi taxaw la loolu la ñu wax waaw loolu la ñu wax mais méngoowut ak li am wax dëgg yàlla méngoowut ak li am waaw très franchement <laughs> méngoowut ak li am jàpp nga daal ni justice moom képp ku nar a jubal rek ñu damm seetaan bi daal wax dëgg yàlla dama jàpp ne daal amuñu amuñu justice bu équitable quoi ci réew mi mhm. ak comme c'est comme comme comme beaucoup de secteurs ah lu justice kese mhm. non il y a une séparation de pouvoir dans ce pays te loolu moom mooy li nga xam ne mooy dëgg ñëpp xam nañ ko. Mhm. Eh, wax nga sànq wàllum dooleel jigéen ñi ci diwaanu Xombal ko wër wax nga monter ay cellules fexe ba massifier le territoire communal et ses environs donc mun a liggéey bu yaatu boo xam ne mi ngi ci seen kanam eh, ndax mën nañoo xam concrètement itam objectif yi ngeen viser pour que loolu yomb. waaw objectif yi ñu viser euh, li nga xam ne moo ci jiitu mooy ñun ñun ñi nga xam ne ñoo porter le combat d'abord. il faut ñu amay comportement yoo xamante ni digne d'un serviteur d'abord waaw loolu moo ci jiitu. waaw comme comme comme comme comme maanaam euh, nekk fi rek ngir askan wi nekk fi nekkal fi askan wi tout d'abord nekkal fi askan wi di liggéeyal askan wi di di jaamu seeni soxla te yaakaar naa loolu rek la ñuy xaar ci un serviteur jàpp naa loolu bu amee nit di ku mel ni Omar mii. nga xam ne moom li mu def nii dina am ñeneen ñoo xamante ni ils vont suivre waaw tey ñun loolu rek moo ñu tax a jóg loolu rek moo ñu tax a jóg wax dëgg yàlla. ñu wax ci wàllum parrainage ndax euh, ñu ngi ci ba le 27 novembre suñu juumut euh, euh, fan ngeen toll ci liggéey bi ak collecte bi nan la demee. waaw alhamdulilah ci parrainage yi parce que parrainage yi dafa nekk secteur dafa nekk benn benn secteur ci ci liggéey boo xamante ni dañ ko préparer bien avant mhm. ndax boo xoolee alhamdulilah au niveau de Xombol. bu dee ci partie les serviteurs au niveau départemental xombal moo ëpp lu mu joxe ñun wax waaw ñun non de de ah, toute façon. Ah, non parce que day dem ba mois de novembre. waaw te forcément am na loo leen dugal. mais wax ko internet di comprendre dem rek dem rek. démb rek dugal nañ benn premier lot au niveau départemental loo boo xamante ni département bi yëpp moo ko dugal c' est 4747 démb rek. yóbbu jébbal nañ ko le président Pape Djibril Fall. Ah waaw te des te des yéen atteindre parce que tey boo xoolee récemment rek le maire moom mi ngi ci pouvoir bi réclamé na presque 2000 parrain ni dugal na ko yéen boo leen yegg see 4000 ndax kon dañu jàpp ni yéen yéen a accaparé xombal politiquement parce que 4000 c'est pas facile ah. non waxuma waxuma ne xombal lañ joxe 4000 mais au niveau département département bi yëpp li ñu joxe ñun. ah d'accord c'est 4747. mais xombal moo ëppalee lu mu joxe ci département boobu noonu. ci département Thiès ci département waaw jot naa information euh, le coordonnateur départemental. mais c'est pas évident parce que boo xoolee itam même village environnant yi ay tenor politique yu nekk pouvoir bi prenons l'exemple de Ngoundiane Mbaye Dione mi ngi fa bokk nekk allié. nekk responsable dynamique bu AFP nga ñëw Touba Toul les Amédié entre autres maanaam tey commune boo laal ci arrondissement bi am na ténor boo xam ni mu ngi def liggéey bu am solo euh, ban stratégie xëy na doo ko dévoiler sax mais de façon très nan nga def ba mën a conquérir vraiment suffrage yu gars yi ban mën la jox seen i boo xoolee aussi boo xoolee liggéey boobu tamit nekkul liggéey boo xamante ni dañ ko def tey tey tey lu ñu yàgg a préparé lu ñu yàgg def la. bien avant lancement parrainage yi ñun commencé nañ di di parrainer. Mm-hmm. bien avant. mais ndax mën nañoo xam chiffre bi xombal dugal loolu bu fekkee yéen a. dinaa la ko wax bu soobee yàlla dinaa la ko en personne. <laughs> Eh, non internet yi. non mënu ma ko dévoiler. dans la diaspora ma ko dévoiler du ko dévoiler de toute façon daal xam naa ne. mais honneur la parce que. non waaw waaw loolu dëgg la mais nañu xam rek ne. bu ñu dee 15 communes. ci département bi. yow nga sañ taxaw ni man maa raw parmi les 15 communes. mais loolu fierté la. c'est parce que loolu mu am. c'est parce que loolu moo am quoi waaw sama loxo ca kaw loolu moo am. mais il faut dévoiler les signes. non non non garaawul c'est pas la peine man moom euh, xam nga du ma ñëw ne par exemple <laughs> di wax loo xamante ni xaj na euh, ay caaxaan la quoi. d'accord voilà. Euh, présidentielle yi xëy na di si deux mois dinañ xam. fi wànneen mujj ak ay gëtam. Mhm. ndax conseil constitutionnel mooy valider la candidature des uns et des autres. sukkandiku aussi ci parrainage bu valable boo xam ne day respecter norme yi nga xam ne noonu lañ ko bëggee tey jii bu yàlla dogalee ngeen jàll. ndax da ngeen di dem euh, dans une coalition wala da ngeen di dem ci benn parti indépendant lan ngeen figuré wu. waaw xam nga euh, liggéey bi moom euh, dafa nekk benn liggéey boo xamante ni am na ci yu bëri yoo xamante ni pour l'instant ni je crois que mënuñu ko wax mais li ma la li ma li nga xam ne tey moom laa la mën a wax rek mooy li nga xam ne moom lañ bëgg mooy coalition la ñuy def incha allah bu ñuy dem ci ci ci présidentielle yi 2024. waaw te coalition bu aussi boobu noonu ñuy def ce sera sélectif c'est-à-dire que euh, képp koo xamante nii bokku ñoom moom conviction wax dëgg yàlla duñu ànd duñu mën a ànd ak moom mais ñi ngi nekk di discuter dans l'ombre ak ñoo xamante nii euh, des partis indépendants yoo xamante nii incha allah yaakaar nañ à trouver consensus te dinañ ànd ak ñoom ci coalition boobu. ci diwaanu Xombol mu am benn slogan boo xam ne mu ngi dominer langue politique bi Amadou Ba par A ou par les deux lettres successives successives autant pour moi est ce que est ce que tey li li nekk ci leget gi yëpp dooleen ko yekkal Amadou Ba buñ la déggee. parce que tey ba ni coalition ngeen di def. parce que xam naa ni Pape Djibril góoma ni ci biir opposition bi dina am ñenn ñoo xam ne day coaliser ñoom parce que naa na wax yu bari yu fi xew ci ginnaaw duñ ci ñëw. mais c'est des réalité politique uh-huh. est-ce que kon yéen jàpp leen nit mënu leen sax ranger wu ci Benno Bokk Yaakaar ngir gën koo dooleel. loolu loolu mënu loolu loolu moom mënta ne. loolu mënul nekk te du nekk ndax euh, je crois que ñun ak ñoom bokkuñu ay conviction politique waaw ñun on a besoin d'un changement radical ñun ci loolu lañ nekk ñi nga xam ne tey moom ñooñu lañ bokkal conviction bokk gëm-gëm incha allah ñooñu la ñuy àndal te yaakaar naa ne. Amadou Ba figuré wut suñ plan boobu waaw je crois waa ñu ngi ciy waxtaan mais waxtaan waa ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy liggéey ak des partis indépendants comme ni ma la ko waxee ñoo xamante ni ñoo bokk ñoo bokk xalaat bokk gis-gis ci réew mi voilà mais pas ay parti au pouvoir non non déedéet. Euh, politique buñ ko waxee dañuy wax querelle de positionnement mooy li am ci seen biir. Ah. kenn ku ne di xëccu ni man la moo am également. confrontation des idéologies selon ñi ngi ko sekkal fii ci diwaanu Xombol nag yàlla dogal na bari na ay ténor politique yu nu xam ci Sénégal ci seen i capacité seen social waaye nag coow politique xëy na amagu fi te ñaanuñu ko yàlla sa diggante ak euh, ñi nga xam ne ñooy yëngu ci langue gi li ëpp ci ñoom ne say mag ban relation la waa xanaa di leen ñaanal tout d'abord jàmm euh, ndax Xombol dañ ko wax honnêtement moo fi ne Lamine Gueye Ablaye Tine avant loolu sax fii sama quartier Adama Diop Diam mi ngi fi. Ah, waaw ak waa Assane Nia <laughs> comme vous voulez. mais wax dëgg yàlla ñun jàmm lañ seq ak ñëpp. ndax ñoom euh, ñu ci bëri samay mag lañ kilifa laa leen jàppe kilifa laa leen jàppe politique warul ma warut a mën a tax ñuy ñaawoo man pour man dafa war a rafet lépp dafa war a rafet ndax politique un jour dina jeex lu ñu dab la ci suñu àdduna rek loo xamante nii dina jeex incha allahu rabbi man tey su ma génnoon àdduna ñooñu. kenn dina teew au moins yaakaar naa ne kenn dina teew ci sam ci ci ci même bu ñu may denc vice versa comprendre nga donc daa war rafet man pour man da lépp dafa war rafet mais euh, ñàkk ñàkk a bokk xalaat ñàkk bokk gis-gis wërta mën a tax tamit xiiroo ak ŋaayoo parce que ëllëg ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo bokkaat xombal ñoo fi toogaat su ku ci gis njariñ nag ku ci gis njariñ ci biti war nga ko mën a wuti ñëw indil ko waa xombal waxu waxuma na nga wuti ko teeku mais indi ko indi ko indil ko askanu xombal man xombal moo ma ñor xombal moo ñor ñun ñun les serviteurs voilà njariñ li ñu bëgg mooy wuti njariñ indil ko ci dëkk bi xombal da di dëkk boo xamante nii fii mu nekk da ko war a weesu suñu waxantee dëgg fii mu ne da ko war a weesu tey da ngay génn sa kër di xëy wala nga nga wàcc daanaka xombal leen rek moo fi am xale yi ngay gis ci terrain ñuy calcio kese naan ataaya nangam nangam mais pourtant yaa yaa y a humain bu nekk xombal boo xam ne war nañ jàppale waa xombal lu tax duñ ko def dañoo war a jàppale askanu xombal jeunesse bi jigéen ñi ñëpp dañ leen a war a jàppale. indi fi waa damaa jàpp ne gars yi dañoo desee gëm dëkk bi man jàpp naa ne dese nañoo gëm dëkk bi daal mais bu fekkee gëm nañ dëkk bi dëgg dëgg dëgg dañoo war a jàppale dëkk bi daal ak ndaw ñi ak jigéen ñi surtout. wax dëgg yàlla. wàllu emploi ak yeneen ak yeneen wax nga ko ci ponk bi nga xam ne fi nga daanele serviteur lan mooy ay perspectives am ci xombul. waaw euh, à xombul vraiment am nañ ci ay projet rag projet wax naa la sànq ne la euh, am nañ ay projet yoo xam ne pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi. Euh, du ma du sànq wax naa du ma dévoiler tey suñu suñu suñu suñuy ressource suñu plan d'action du ko du ma ko du ma ko dévoiler mais incha allah balaa yàgg nit ñi dañ ci xam dara bëgg nañ aussi Euh, incha allahu rabbi liggéey fi liggéey bu mucc ayib sur tous les plans nag. sur le non non non non non non non nekkuñ ci yooyu ñun nekkuñ ci yooyu tey bu fekkee ñun dañoo nar a falu sax di jariñoo askan wi yàlla bu ñu falu parce que ñun loolu lañ gëm waa jariñ askan wi moo ñu tax a jóg wax dëgg yàlla ndax loolu daal déjà avant ñuy dugg ci politique dafa nekk ci ñun waaw dafa avant def liggéey bu rëy bi ngeen sumb nekk ci bopp ba léegi jeexal ngeen phase parrainage yi wala yéen a ngi ci. pour la continuité euh, seen leader di Pape Djibril euh, ban taxawaay la ci amee. waaw waaw waaw moom moom vraiment comme comme comme tout le monde rek comme bépp serviteur rek parce que moom jàppale jàppal boppam sax euh, un leader dafa jàppe boppam un membre un membre simple du mois mouvement les serviteurs moom aussi mi ngi sur le terrain comme ni ñu ko nekk rek. bu baax a baax. bu baax a baax ñi ngi déggante di mu mu ñu joxe orientation des fois ci liggéey bi. parce que c'est normal des fois tamit am na day am loo xamante nii day wàcc comme information yoo xamante ni da koy génne ñu waxtaan ci ñun ñëpp quoi. pour ko donte conquérir ngeen territoire ko defee mu gën a xam ni allah yàggatul sax loolu. incha allah yàggatul bu soobee yàlla moom dina ñëw xombal du yàgg dara incha allah. monsieur Mbaye actualité oblige xam naa egg si nañ ci cappaandaw ji Euh, mu am phénomène boo xam ni mu ngi ci biir ndaw ñi sànq wax nga xëy ndaw ñi am na déclinaison boo ci indi pour les serviteurs xëy na du ñàkk bu leen yàlla dimbalee loolu dina yegg ci askan wi rawatina ndaw ñi muy émigration clandestine saa soo xëyee dégg ay ndaw di faatu ci géej gi bërki dem rek am na benn célèbre tiktoker bu dëkk Touba je crois moom itamit la a perdu euh, euh, sa la vie waaw vers vers les côtes d'Espagne entre autres mu nekk loo xam ni souffrance la ci ndaw ñi état bi naam jéem na effort waaye phénomène bi mu ngi wër di amplifier wu. Euh, nan nga gisee phénomène bi ak lan nga jàpp comme solution bu buñ ko amee teg ko ndaw ñu mën a dal. waa avant tout di jaale euh, réew mi yëpp rek ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci émigration bi euh, man li ma gëm man gëmuma lii gëmuma maanaam réew moo xamante nii ñi ngi naan pétrole ma nga fay ma nga fay juddoo ak gaz ñi ñi am yaakaar ci réew mi ndaw ñi ku nekk di jël gaz gaal di dem ci loo xamante ci anam yoo xamante nii vraiment ay lépp ay risque la kon on doit se poser la question lan moo tax am na lu xew li xew nag man jàpp naa ne gisu dara waralu ko lu mal gouvernance moo ko waral mal gouvernance moo ko waral boo xoolee tey suñu côté yi ñi nga xam ne tey ñoo ñoom ñoo yoroon napp gi moom tey euh, au lieu ñu dem wuti jën dañuy def transport di jële fii ay nit di leen yóbbu Espagne di leen yóbbu ay Europe bu ko defee ndaw ñi di dee ci ci àll bi au ñu dem jël seen gaal yooyu mais lan lan moo tax nag tey jëluñu gaal yooyu dem nappi jën c'est parce que géej gi amatul jën lan moo tax géej gi amatul jën jaay nañ géej gi kan moo ko jaay gouvernement bi ñan la ko jaay en partie daanaka chinois yi ñenn ñi licence licence jox leen ay licence de pêche ñu ñëw jël suñu jën yu baax yépp donc vraiment euh, man jàpp naa ne mal gouvernance moo waral lii lépp. mais en tant que jeune leader. Uh-huh. solution. waaw waaw en en tant que jeune leader. Euh. message boo xam ne ndaw ñi dañuy gëm seen bopp rester développer seeni seeni activité ngir seen ëllëg man a jag wala gouvernement bi day activer sa politique de jeunesse pour trouver leen ay canaux d'emploi. waaw xam nga dañoo war a dañoo war a dañoo xam nga maanaam euh, réew mi fi mu toll nii gouvernement bi dafa war a dafa war a trouver ay solution solution yooyu nag bu fekkee ñoom amuñu volonté trouver ko je li may conseillé ndaw ñi mooy ñu votel Pape Djibril Fall fal ko 2024 euh, parce que moom moom na am na am na am na solution parce que rien que rien que tey avec la pêche euh, Pape Djibril dégg nga ko déglu nga ko bërki démb bi ñu ko wooyee ci benn télé foofu mi ngi wax mi ngi génne benn projet boo xamante nii xañ na en mille emploi la wax ni jeunes ay jeunes yoo xamante ni daf koy créer rien que bu ñu ko falee ci laps de temps 2024 entre 2024 2026 loolu lépp nag tey dina dina nekk loo xamante ni day réduire euh, émigration bi. émigration bi ñu daanale ci politique bi euh, Boubacar Camara nekk candidat à la candidature moom itam bërki bu def na benn sortie médiatique euh, sàkku daal ci ñi nga xam ne ñoo sekk langue gi muy ñi ci pouvoir bi ak kujje gi ñu renvoyé. maanaam dàkkandi élection présidentielle yi. nan nga gisee loolu ndax nangu nga ko walla waa très franchement man nangu ma loolu ndax. pour man candidat yëpp fi mu toll nii pare nañ pour dem élection li nga xam ne moo moo man moo war ci sama xalaat bu gàtt mooy ñu organiser des élections euh, yu transparentes euh, képp koo xamante ni aussi daa war a bokk ñu bàyyi ko mu bokk sénégalais yi tànn ki nga xam ne moo leen neex ñu fal ko jox ko réew mi. monsieur Mbaye lan moo nekk sa kàddu gu mujj egg si nañ ci cëppandaw. waaw xanaa di sant yàlla rek di santaat sama gaay yi nga xam ne moom laa àndal ci liggéey bi. di soññ sama bopp di leen soññ di soññ tamit waa xombol gépp ne leen daal wax dëgg yàlla nous nous sommes les serviteurs pare nañ pour yóbbu xombol ci niveau boo xamante ni mosu fa àgg wax dëgg yàlla di di la sant aussi yow tamit bien sûr bien sûr même international parce que même du ñem ci Sénégal rek Afrique sax voilà parce que Pape Djibril ku ko xam ku xam ku xam Pape Djibril xam ne Pape Djibril euh, ku rëy bët la waa gis-gisam wax dëgg yàlla jéggi na sax réew mi donc euh, loolu la ñuy ñaan yàlla suñ borom fal ko ci réew mi li ñu bëggal liggéeyal réew mi ñu liggéeyal ko incha allah lool la ñuy ñaan yàlla. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu àndaloon ci seen émission leader politique amoon mbégte bu baax a baax euh, dalal suñu frère Abdoulaye mbay jiite nag les serviteurs fii ci xombol ak li ko wër di def liggéey bu ama am solo ci wàllu massification waaye redynamiser les troupes ngir nag les serviteurs ëllëgëm mën a jag ci sunu gaal waaye bawal itam gën ci mën a gis seen bopp ci projet bi nga xam ni ce leader charismatique porté na ko Adama Ndiaye leen àndaloon ci image yi jox leen rendez-vous beneen invité ci yeneen édition ci thiesinfo.com jaa ngeen